yéen ñi siiwul seen site internet bi di 24 actu rawatina seen émission gëstu dina ji gëstu dina ji moom comme niñ leen ko waxe woon rek ak comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk tey ñu am ci gan goo xamante ni gan gu mat gan la di sëriñ Seexuna Joxaane di yëngatu ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jàng ak jàngale yor ay donga di leen tarbiya di def si ñoom xam-xam tey moo nekk suñu gan suñu temu tey tamit su nekk li nga xamante ni moo du euh, moo di ak sawmu di koor tey moom la ñu fas yéene waxtaane fas yéene koo séq ak ki nga xamante ne moo di suñu gan di sëriñ Seexuna Joxaane mu leeral ñu koor ak euh, yi ci aju yëpp suñu gan ñu bàyyi la nga nuyoo sëriñ Seexuna maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin asalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin mm-hmm. wa ala alihi wa sahbi ajmahin wajal kalaami rachida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida soxna Astou maa ngi bu baax di ziara di nuyu mboolem nekk ci àdduna bi yëpp. di ziara suñu yi nga xam ne ñoo ne ci caméra bi. fas yéene ñëw ak ci émission gëstu diine ji incha allah ko waxee. li nga xamee ne mooy koor ak yi ci aju yëpp ñu fas yéene ko leeral. ñaan suñu borom mu may ñu làmmeñ wu ubbiku ak xel mu ubbiku. ak làmmiñ wu tàlli ngir ñu mën a génne la nga xam ne moo nekk ci nun ba mën cee jëriñ ñi nga xam ne ñooy déglu euh, jërëjëf sëriñ Seexuna Joxaane ci nuyoo bu am solo boobu tey suñu tam nekk li nga xamante ni mooy di asawmu di koor sëriñ Seexuna tey boo ñu doon forom fàcceel baatu sawmu googu lan nga ñuy wax soxna asu asawmu ci luxatul arabiya te mooy langue bi mu mi nga xam ne ci lañ ko wax mm-hmm. mi ngi tudd ñu ngi koy woy al imsaaku ani yi mooy jàpp sa njàmbur ci lu mën a doon ku toog jàpp njàmburam daal ne nangam moom jàpp naa ci sama njàmbur moom la ñuy tuddee ne euh, ku woor ba demee ci suratu Maryam di nga fekk suñ borom di ñu nettali ci làmmiñu sayyiduna sayyidatuna Maryam ne inni nazartu lirrahmani sawma man de dama nësër sama digg ak sama borom tey ma bañ a wax muy ma woor ay wax boo demee ci nax ju xadaayil xaaj di fekk sañ bi muy indi muy jëfandikoo baat boobu di wax ne fa kullu man saama an razaili fa innahu yuftaru bil fadaili mm-hmm. koo xam ne dangaa woor ay caay-caay suñ boroom dina la jox ndogu ndogu li mu lay jox nag mooy ay ngëneelam la lay jox ndogu mm-hmm. kon baat bi foofu la moo loolu mooy baatu koor ci luxatul arab mm-hmm. bu day charia nag moom al imsaaku an shahwati l badni wal farji bi niyati taabudi lillahi taala min tuluhi l fajri ila gurubi shams mooy nga jàpp sa njàmbur ci lépp loo xam ne day jëm ci sa biir. Mm-hmm. wala lu jëm ci sa pëy. def ko jaamoo ko yàlla borom bi tabaaraka nag ci fenkatal fajar. ba keroog jant bi sox. Mhm. loolu mooy woor ci luxa ak charia. Mhm. Euh, jërëjëf sa Cheikhouna ci leeral yu am solo yooyu ci baatub li nga xamante ni moo di koor kon buñ la déggee mooy képp koo xamante ni woor nga rek te jàppoo sa njàmbur wala teewoo say cër wala yaa ngi def lépp loo xamante ni yow daal da nga jàpp ne koor gi moom xiif ak mar la rek. Mhm. kon ñu jàpp ne kooku daal jëmmi li nga xamante ni moom lañ tuddee baatub saw mu jëfandikoo ko bu baax a baax. loolu mooy dëgg asaw moom mooy jàpp sa njàmbur. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ne man lam yada qawla zuuri wala amalu bihi fa laysa lillahi xaajatun fi ay yadaa taamuhu wa sharaabuhu mm-hmm. nee na koo xam ne munta muñ wax ay caaxaan ak def ko mm-hmm. nee na yàlla amul soxla ci mu bàyyi lekk ak naan yàlla amul soxla ci mu bàyyi lekk ak mm-hmm. kon ngir nga bàyyi lekk ak naan dangaa war a bàyyi lépp loo xam ne sëñ borom tabaaraka wa taala digalu la ko te itam nekk ci li la yàlla digal loolu moo tudd ak sawm mm-hmm. waaye bu loolu amul rek. Mm-hmm. day mel ni koor mu amu fa. Mm-hmm. waa jërëjëf si leeral yu am solo yooyu kon ñu ñëkkaat ci li nga xamante ne mën nañ ne koor kañ lay war ndax buñ ne war nañoo woor rek ci ci ban anam rek mooy tax ñu xam ne ñun kat dañoo war a woor. waaw koor borom bi tabaaraka wa taala mi ngi ko farataal ci noonu ci atum ñaareel gi ci gàddaay gi atum ñaareel gi ci gàddaay gi. ci weeru Shaaban ak ak waram nag ci alquran ak ci sunna ak borom xam-xam yëpp maas nañ ci ne koor dafa war. Mm-hmm. boo demee ci alquran da nga dégg suñ borom yi wax ne a ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala a min qablikum laallakum tattaqun mm-hmm. bu fekkee gisuñu ko ñu mottali fanweeri fan yi bu ñu xëyee koor doog ñoo war mm-hmm. te mooy li yonte boo xam ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu iddata shahbana salaasina yawma bu wóor leen bu ngeen ko gisee wari leen bu ngeen ko gisee bu fekkee asamaan si daal lëndëm ba mun leen koo gis nag ngeen mottali Shaaban fanweeri fan kon koor balaa war day fekk ñu gis weer wi. Mhm. way la ñu mottali Shaaban fanweeri fan yu mat sëkk. Mhm. koor doog ñoo war. Mhm. waaw jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu mais dañoo seetlu ne bu séntu weer yi mën nañ ne bu jotee rek kenn ku ci nekk ak xalaat ba nga cee amee ñi ne man tarixa yi laa bokk ñi ne man tarixa yi laa bokk xëy na sax euh, du jar ñuy cité naan comme am na ñoo xamante ne dañ koy def ñëw ma buñ gisee dañuy woor buñ gisul dañuy woor am ñoo xam ne dañuy maas dëkk sàngam kat la ñuy diglu ñoom kat bu ñu wooree ñuy woor te donte sax dëkk yi euh, mën nañ ne heure yi fay daw ak heure yi bokkuñu mhm. loolu tamit yow loolu ban xalaat nga ci am ak euh, ban jàngat nga ci def jàngat bi ñu ci jàngat mooy jàngat bi hadis bi dafa leer nañ mhm. mooy suumu li ru'yatihi bu mm-hmm. ngeen ko gisee. Mm-hmm. gis gi nag dañoo wax ne day doon ñaari jullit ñu maandu gis ko ba noppi ñëpp wóolu seenu maandu ñu xam leen ñu ne gis nañ weer wi boobaa jullit ñi sañ caa tënku. waaye wa aftilu li ru'yatihi foofu sax oustaz ma bañ laa dog mais baatu maandu googu nga wax na est-ce nit ñi léegi ñu ngi sukkandiku ci euh, ñi nga xamante ni euh, mën nañ ne dañoo maandu ak ci ñañ ko war a wax. dama la dama laa wax ne la. faaw mm-hmm. nga sukkandiku ci ku maandu ba nga xam ko. woo téléphone la gis naa weer wi sàngam. est ce que ndax kooku mën ngaa séere ak maandoo. Mhm. ba mën a sukkandiku ci moom. Mhm. ngir mën a woor wala nga wari. Mhm. te li yonte bi wax ne fa in ghumma aleykum dafa wax ci. waxut ne la wax. kon weeri mën naa feeñ te kat ko gis. ñun buñ ko gisut li sëñ bi waxoon ne maa ngi leen dénk taafeer mbaa fanweer. taafeer mooy nga gis ak sa bët boo ko gisul nga mottali fanweer ba mat sëkk. moom dafa waxoon ne bu ngeen bëggee noppalu ji coow weer. na ngeen folli nopp yi tafal bët yi. est-ce que loolu bareeti na. na ngeen folli nopp yi tafal bët yi. Mhm. dèjà ñun ñi ñi nga xam ne ñoo ñoo tënku ci njàngaleem sëriñ bi. Mhm. li ñuy jëfandikoo mooy loolu ñu sëriñ bi dénkoon mooy folli nopp yi tafal bët yi. Mhm. bu fekkee gis nañ ko daal ñu woor buñ ko gisul nag ñu xam ne ñu mottali fanweeri fan yi doog a woor mhm. loolu mooy li sëñ bi digle mooy yonte bi tam wax ci hadis bi mhm. ndax fa in xuma aleykum fa akamilu iddata saxbaana salaasin yawman mhm. dafa leer nañu lool jërëjëf oustaz am xam ba xam euh, ci ñan la war ci ñoom ci ñan ñan ñooy ñi nga xamante ni dañoo war a woor est-ce que koor gi moom a a woor wala na ci ñoo xamante ni dañoo sile ne ñi ak ñi ku mel nii ak ku mel nii moo war a woor koor ñi mu war mooy ab jullit da ngay nangu ne suñ boroom mooy moo la bind. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la fi yebal suñ borom doog laa teg ay jëf. Mhm. ñaareel ba mooy mukallaf mooy koo xam ne euh, togg nañ ko jëf ay mandarga yu bari lay feeñe bokk na ci ku sax beneen karaw bu dul karaw bu dul karaw bopp. Mhm. wala ku gént bu dee jigéen bu gisee baax. wala nga am fukki at ak juróom ñett ñenn ñi fukki at ak juróom. yooyu bu dajee ci yow mukallaf nga war war na la niki noonu ko amoon xel al aqil mooy koo xam ne mi ngi ànd ak xelam niki noonu koo xam ne woote bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jot na ci a nekk lu mu na ko mm-hmm. ak itam al qudra mooy nga am kàttanu woor mm-hmm. kàttanu bu ñu ko waxee nag mooy ku tawat ba mënta woor wala màggat mu màggat ba amatul kàttanu woor ñu ñëpp koor waru leen mm-hmm. nekk noonu bu dee jigéen itam day fekk mu set ci ñaari deret yi muy a euh, gis baax ak wasin mhm. boobaa daal ñii daal euh, war war na leen ñu mën cee dégg ne kon ab yéefar war waru ko mhm. xale bu ndaw ko war ko koo xam daa tàggook sagoom ñu ko woy ab dof war waru ko mhm. ku jutut ci woota bi yonente bi ko war waru la niki noonu ku munta woor ku amul kàttan gi koor waru ko nekki noonu ko xam ne itam ji dee jigéen la daa gis ñaari der yooyu ma waxoon léegi. Mhm. kooku itam koor waru ko. ñooñu la war war. Mhm. jërëjëf a si leeral yu am solo yooyu ñu bëgg xam tamit yan sart mooy tax koor mën a wér. waaw koor mën a wér il faut nga jiital yéene fanaanoo yéene ji fanaanoo yéene ji mooy euh, boo naafila ba noppi wala balaa balaa fajar fenk daal. Hmm. na fekk yow nga yéenee fanaanee woor. ñaar hmm. kon daal foofu moom bu fekkente ne comme yow da ngaa fàtte yéene nga xëy rek ba ci jour bi rek. Hmm. lekkoo naanoo continuer na yow danga ngaa woor est-ce que di am. koor loolu tam du du du tudd koor. waaye nag ñu ñu bàyyi xel ne yéene benn yéene doy na ci weeru koor bu weer yi feeñee nga ne fas yéene na ma woor weeru koor wi. yéene ko ci sa fas ko. boobaa yéen jool doy na la sëkk ba weeru jeex tàkk mm-hmm. bu fekkee nag da nga ci am gànt man mm-hmm. da ngaa tawat mm-hmm. wala da ngaa tukki woon ba dog bu boobaa wala jigéen ju gisoon baax ba set boobaa nag bis bu nekk ak yéene yi boppam da ngay fanaanoo yéene ji boo xëyee nga doog a a woor. Mhm. koor gi doog a baax. Mhm. Mhm. ñu bëgg xam tamit yéen waxtu lañ tàmmal ne waxtu yi kat ci lañ war a commencé woor wala waxtu yi ci lañ war a commencé dog ndax sama classe gi ñi nga xamante ne dañoo sant siise wala ñu sant loo moom heure leen neex rek la ñuy xadd heure bu leen neex la ñuy dog. lu ci nekk dafa am ay régal yoo xam ne lislaam da koo tëral. buñ bu fekkee ne fajar gi mi ngi fenk boo demee ku yittewoo ku nekk léegi farlu calendrier yoo xam ne di nga xam waxtu wi ñu ñuy xëdd di nga xam waxtu wi ñu dog yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal daan wax ne diggante fi nga xamee ne fii lañ jàpp jot na ak fi ñuy jullee wala fi ñuy noddee. Hmm. waree na fi mën a jàng lu mat juróom fukki aaya alquranul karim diggante boobu. léegi noonu tam foo demee ba gisoo jant bi gisatoo ci moom dara. Hmm. boobaa itam maanaam nga wóorlu ko ay minute boobaa itam dog jot na. mais foofu tamit Oustaz dama bëgg ñu def fi benn taxaw seetlu bu baax a baax ndax parfois nga nekk ci benn koñ boo xamante ni mën nañ ne dafa am jàkka. Mhm. moo xam ka ka war a yëgle ne xadd jot na kooku dafa biddanti wala dara yu tamit nga sukkandiku ci moom est-ce que loolu dina tax tamit sa koor wér wala nan lañ koy mën a tuddee. déedéet bu fekkee ne da ngaa da ngaa yeewu. Mhm. ni nga yeewoo nga jàpp ne jàpp jotagut. Mhm. nga lekk boobaa bis boobu moom dañ lay sant nga jàpp continuer bañ ca lekk bañ a naan waaye bu koor gi jàllee da nga koy fay. loolu moo wér. Mhm. bu fekkee nag yàlla dogal na bi ngay yeewu fekk na jàpp ju dugul nga lekk. Mhm. bu boobaa moom dara du la ca du la ca waram boo karmatee te xëddoo itam nga continuer rek. sa koor <laughs> sa koor kon ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di faratay koor ba ñu doon wax faratay koor ma nga ne oustaz yan ak yan la. faratay koor ñaari ñaari farata la. Mhm. li njëkk mooy yéene ak fekk sa bopp ci lépp lay dogloo ni ko sëñ bi waxee ne siyaamunaa lahu faridataani bila ziyaadatin wala nuqsaani niyatuna wa kuffana an muftarat li wajhi baaxin mutimin bi tayyibaat mhm. kon ñaari farata la am moom koor mhm. ni ki doon ay sunna mi tam noonu la demee mhm. mooy ñetti sunna mooy taajilul futuur taaqiru suxuur kaful lisaani min qabli radi maanaam yaa gaaw a dog waaye na fekk nag jant bi sax yaa xëdd waaye na fekk mu doon ci guddi gi ak sa làmmiñ wi nga fekk ci jépp wax ju ñaaw moom la sëñ bi jur ne sunanuhu salaasatun inda labib taajiluna alfutuura min baadi alxurub wa thani taaxiru suhuri layla thaalisuha kafu lisaani qawla kon loolu mooy farata yi ak sunnee koor muy ñaari farata ak ñetti sunna mais oustaz dañoo seetlu ne koor gi mën nañ ne bu ñëwee garam place yi day bëri xeeti dallukaay yi day bëri xeeti waxtaanukaay yi day bëri mhm. loolu tamit bëgg nañ tamit nga defal ñu si ab jàngal bu yaatoo yaatu ndax am na a dàq koor surtout am ñoo xamante ña ngi dajale xaalis mhm. ñu wax lu seen yoon nekkul ñu wax ñii nag moom lido la ñuy da ngay nekk ñoo mhm. ko jox xàqam dëgg-dëgg loolu mi bokk ci ñàkk sàmmoonteeg teggiini koor jaamu yàlla yëpp ku ci ne am na ay aadaab ay teggin. léegi xeeti jumtukaay dafa bari ndax lu mel genre whatsapp yi maa ngi si jéeglu baax ña ma ko war a wax. Mhm. mën nga gis nii rek di vocal ba dugg ci débat jàmbur boo xamante ni waroo see dugg te fàttali na yow da ngaa da ngay gis ne day am. Mhm. mooy doo bàyyi xel sax ci ne yaa ngi koy def. Mhm. li gën a sew ci la bokk moom jëw. te lu doy waar la. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne fanweeri njaalu moo gën benn jëw. te lu doy waar la. te di woor ba noppi di ko def nag day mel yaa ngi jël sa yiw di ko jox keneen di wor ba noppi di ko yàkkal keneen lu lay nuru. Mm-hmm. moo tax loolu lu jar bàyyi xel la. ak mm-hmm. ràmbaa jekk li ci teg li ma tudd yëpp rek. Mm-hmm. sa bët itam ni ki noonu lépp loo xam ne lu araam la nga bañ ko cee xool. seetaan télévision yeeg ak caaxaan yëpp. nga wàññi ko. ni ki noonu sa nopp yi lépp déglu déglu musique yu ba yëpp nga bàyyi ko. sa biir lépp loo xam ne li la ne lu dagan la. nga bañ ko cee dugal. loolu nag bu ñu ko tënkee mooy ay ma waxoon léegi man lam yada xawla zuuri wala amalu bihi falaysa lillahi xaajatun fi ay yada taamuhu wa sharabuhu ku munta bàyyi yii ay caaxaan ak def lu ñaaw amul soxla ci nga bàyyi lekk nga la bàyyi naan loolu kon koo xam ne yaa ngi ne ci am na yeneen teggin teggin yoo xam ne teggin dañ ko sopp ci nit mu bàjjam mu mu sàmmonte ak moom teggin yooyu mooy nga fexe ba boo woree koor gi yëpp bëccëg bi yëpp nga concentré ko ci jaamu yàlla mooy fexe ba yokk sa jëf yu baax di julli di saraxe. même da ngay gis ñoo xamante ni comme li ma la waxoon sànq sax dinañ tiim li la ba mu faat fàttali leen sax euh, faat waxtu mu jaral leen faat ñoo xam ne sax du nekkul mais dañuy dañ naan bu xëyee suba julli. dañuy sonn coono yoo xamante ni mën nañ ne duñ julli ba tax sax dañuy dem na dañuy bàyyi ba dog rek dogo fay yeneen waxtu yi loolu tamit. lan lañ ko a tuddee loolu moom maanaam mën naa ne moom maanaam bañ a woor lépp looy def ba bañ a julli rek. Hmm. day mel ni ki loola du baax. kon maanaam daal bu fekkee da ngaa woor. julli julli suba moo xam da ngaa xëy nga xëy wala loo mënti def daal tisbaar jot tàkkusaan jëm ngay damaa sonn du ma ko ko julli damay bàyyi ba dog ba pare doog ko julli loolu lan lañ ko mën a tuddee. loolu mooy bàkkaar bu mbëgg a mag a mag la ndax sëñ bi waxoon na ne. Hmm. képp koo xam ne faat nga waxtu te amoo ngànt askan nañ la bàkkaar bu rëy rëy rëy bi la waxoon ngeen askan la bàkkaar daa toog faat waxtu te amu ci ngànt maam fay gam koy fay téewul moom bàkkaar bu ma nga fa war na ko tuub jëm ci boromam ngir mu jéggal ko bàkkaar yi mhm. waaye nag ñàkk julli moom mu laqan moom mhm. loolu moom day yàq koor moom koor doo ko am. ndax kon daal boo fekkee moom da ngaa woote julli waxtu julli yooyu yaa ngi koy faat moom mi ngi mel ne xiif ak mar rek nga ci am loolu rek nga ci am moom nga ci am waaye ñu dikkaat ci la euh, wa taala ni mu waxee tamit na leen. am na ñoo xam ne suñu borom dafa teggi ci ñoom koor. Mm-hmm. mooy li ñuy tuddee ay axdaar ay ngànt yoo xam ne bu la dabee. Mm-hmm. dañ lay teggil koor bokk na ci ngànt yooyee mooy lu mel ni tawat feebar fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar koo xam ne dafa feebar wala mu ne ci tukki na ub dog te bu gi jàllee mu fay ko ci yeneeni fan waaye tukki boobu tamit oustaz est-ce que du jar nga leeral ko ak i tukkeem ndax bu fekkente ne tamit da nekk Touba dégg kat ñu ne Amérique wala ñu ne France benn soirée fa am wala dara nga mu leer na ne diggante boo fi demee di nga di nga dog ba tax nga sukkandiku ci baatu tukki boobu rek est-ce que genre tukki wax. tukki bi day fekk mu nekk tukki bu dagaan ñaareel bi day fekk itam tukki bi doon diggante fi nga jógee ak fi nga jëm. Hmm. man juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar ñetteel bi day fekk itam foofee nga jëm dëkkoo fa amoo fa kër. ñaareel ba yéene woo faa sax lu ëpp ñeenti fan. Mhm. sart yi bu dajee ci yow. Mhm. ci la ñuy doog a nangu ni yow mi sa tukki bi sañ cee dog sa weeru koor. Mhm. ñaar ñett ñaareel ba itam mooy ñetteelu ñi nga xam ne mën nañ leen ñu bañ a woor mooy màggat moo xam ne mënut a woor kooku nag moom bu ko mënee am wërsëg wi dañoo bëgg muy génne maanaam bis bu set mu génne mudd jox ko ñëw tudd fidiya jox ko aji woor. mu jëfandikoo ko. loolu moom lu mel ni bis bu set. bu ñu ko doon xayma ni muy toll. bis bu set mu génne ab 500 joxe bu ko kàttan matee. Mhm. wala mu génne loo xam ne mën naa nit daal lañ wax. Mhm. loo xam ne mën naa nit. Mhm. mu yëkkati di ma wéree fay. waaye koo xam ne ko nay génn mu di ko joxe moom itam noonu koo xam ne daa tollub diggante jigéen ju tollub diggante bu fekkee ragal na ne bu wooree mën naa loru koor gi mën na koo lor may nañ ko mu bañ a woor waaye bu koor gi jàllee mu fay ni ki doon kuy nàmpal waaye jàpp na ne bu wooree wala xam na ne bu wooree doom ja mën na ba du am ko nàmpale mm-hmm. may nañ ko mu bañ a mu bañ a woor ni ki noonu itam koo xam ne euh, dafa ànd ak dereti wasin wala ma ànd ak dereti dereti gis baax mm-hmm. ñii daal may nañ leen ñu bañ a woor waaye comme ci mën a doon ci ñii nag ku dul ñaar ñi ma ci génne mm-hmm. bu koor gi jàllee da nga war a fay amul naan Euh, fayante wu ma ak yàlla wala amelu ma ko bor. Mm-hmm. yu mel noonu caaxaan yooyu. koo xam ne daal am nga boru koor. Mm-hmm. ba koor gi jàll. Mm-hmm. da war a taxaw ngir fay ko. ngir suñu borom lim lay defal lim la lebal bu fekkee am na lu mu la lebal. lim la lebal lépp mënoo koo fay. kon lim ci jël koo xam ne ñaar la. moom te dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañuy wax naan faylante wu ma ak yàlla. day am koo xam ne yow ñaar muy julli ak koor. ci yërmandeem. mën la julli bu ko fay waaye koor gi moom na fay. xanaa nga war a gore nag ngir fay ko koor gi julliim mhm. la jéggal mhm. ngir fay ko koor gi xam naa oustaz fi waxtu bi presque jeex na fi ñu tëjee rek mooy li nga xamante ni moo di kafaara boo ñu doon faram-fàcceel kafaara lan mooy kafaara oustaz kafaara mooy koo xam ne danga dog ci koor te amoo ngànt moo xam dog gi nag bu ñëwee mel ni mubtilaatu li ñuy wax saw mi mooy yi yàq koor ay ay ay yu bari la mhm. waaye bokk na ci yooyee lekk ak naan wala sëy wala euh, wàccu te tay ko wala focc sa awra ba sa man yu génn nga tay ko mm-hmm. Mm-hmm. yooyu yëpp loo ci def lu nekk kafaara da lay war kafaara nag mooy da woor ñaari weer yu tegaloo ñaari weer yu tegaloo xam ne bis ba ci dog mm-hmm. da ngay tàmbaliwaat ni ko noonu itam wala nga leel juróom benn fukki miskiin ba go ba jaam di am nga goreel jaam waaye jaam amatul kon yaar ñoo ñoo fi des mooy nga woor ñaari weer yu tegaloo Euh, wala nga leel juróom benn fukki miskin ku ci hmm. nekk nga jox ko lu ko regg loolu mooy kafaara ci gàttal leel juróom benn fukki miskin yooyu bu fekkente ne sa kàttan tamit mayu la la ko hmm. loolu nan nga koy doxalee mayu la bu fekkee mayu la ko nga woor hmm. bu fekkee sa ko ñaar moo fi a am benn nga woor bu fekkee mënoo woor dañuy wax ne bu fekkee nga xam ne dafa omal moom liñ bëgg ci moom mooy mu bañ a woor te leel miskin yi génn ci àllam joxe wala bu fekkee ku ko mën la ku am kàttan asafurla dañ koy forcer ngir woor ngir man bu ko neexee kon mën na ne man naa dog fan yu bëree bëri. Mhm. bu ñu waxee mu génne ci xaalisam daal di fay daal di kafaara. Mhm. waaye dañuy bëgg moom woor bu fekkee nag koo xam ne nag góobalul nag pour pour pour pour teg ko ay daan. Mhm. ñu ko nag fexeel ba wut loolee juróom-benn fukki miskin ngir bu ëllëgee bañ koo defati maanaam ay daan yoo xam ne. ki ñu koy teg mooy ki nga xam ne daa bañ a woor te ñàkk a woor ga amu ci benn gànt lu dul moom moo ko tey moo ko defal boppam. xotti war may weer wi. Mm. moo tax ba mu def ko kooku la ñuy teg daan yooyu muy kafaar. Euh, jërëjëf oustaz ci leeral yu am solo yooyu kon oustaz sa kàddu yu mujj ak lan ngay dénk sama classe gu ragal koor gi ak classe suñu Seexuna Njaay gu ragal koor gi. waaw xanaa ñu xam ne rek koor moom euh, buñ ko jàppee ni ko sëriñ bi jàppe woon moom mi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg. Mm-hmm. moom bu woor daan ñëw da koy gàttandu. Mm-hmm. jàpp ne mooy ganam. Mm-hmm. jàpp ne moom rek lay ganes na ngeen di waajal gan gii di ñëw ndax gan la koo xam ne kat at mu jot benn yoon di leen di gane si te nag gan gu ne war nga ko waajal foo koy dal. Mhm. waajalal ko loo koy berndeel. nee na gan gi nag soxlawut bernde yu dut bi qirat taaati wa sadati. Mhm. laa zilta yi kariman zairan abadan mukarraman bi qirat taaati wa sadati ñaar yooyu mooy jaamu yàlla akum jub moom lañ koy berndeele. kon ku jàpp loolu jàpp na itam gan la koo xam ne suñ borom def na ci ngëneel yu baree baree bari bokk na ci. yonent bi wax ne man saama ramadaana imaanan wahtisaaban xufira mhm. lahu ma taqaddama min zanbihi ku ko woor te def ko ngir jëm yàlla ngir sàkku tuyaaba suñ borom jéggal la sa bàkkaar yëpp mhm. bokk na yonent bi wax ne képp ku woor benn bis ngir jëm yàlla suñ borom soreel sa xar kanam sawara doxub juróom-ñaar fukki nawet juróom-ñaar fukki at mhm. ah, nee na ah, kenn du woor maa min abdin yasuumu yawman fi sabilillahi ila baadallah wàccu wa anin naari sabhina xarifa bokk na ci yu yu baree bari la mu wax ne alxuraan ak weeru ko dañuy ramu jaam bi. Mm-hmm. ak la mu wax ne kuy woor ku ne dañuy nangu ak ñaanam. Mm-hmm. ak itam yu baree bari ci ay ngëneel daal yaakaar naa koo xool. Mm-hmm. jàpp naa ne bu ko ñëwee danga koy yàkkalu ko danga koy yàkkamti ngir li ci nekk ci aw yiw li ci nekk ci ak njëggal. li ci nekk ci euh, goreel ki sawara li ci nekk ci yërmande yàlla. kon yàlla na suñu borom dugal. ak jàmm. def ko ni mu ko bëggee. Mhm. ñu génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant ñëpp di la sant baax di la gërëm ci mhm. invitation bi. di sant waa site internet bi yëpp. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, jërëjëf euh, Serigne Cheikhouna Diokhané mu nekkoon Serigne Cheikhouna Diokhané nekk tamit euh, koo xamante ni dafay yëngu ci wàllu jàng ak jàngale lépp loo xamante ni na diine ak lislaam rek ci la yëngatu. mu nekkoon émission bi nga xamante ni moo di gëstu diine li nga xamante ni moo di koor nekk loo xamante ni lu ama am solo la moom lañ dënmal nii yàlla nañ ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim génn tamit ci benn bii ne moom ngay woor war nañ si mën a góorgóorlu kalaasu Elhadji Ousseynou Ndiaye gi ak soxna Mame Fatou Kébé kooku moo xam naa ne boo maydu sax damay ragal ñu bàyyi faalu ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, Oustaz di ko gërëm ci euh, nangul yombul yomb gi nga xamante ne yombalal nañu ko ñëw bi invitation bi su ko neexoon kat mën ne man a jàpp ndax mu ngi li nga xamante ne moo di euh, benn conférence bu mag si biir koor gi te loolu yëpp kat ak oyofam moo ko di ko gërëm di sant Cheikhouna Ndiaye mi nekk bi ak Serigne Fallou Ndiaye di sant soxna Khady Ndiaye mi ne mooy jàpp ci montage bi ak soxna Awa Ndiaye di leen jox dig daje ci beneen jotaay ci seen émission gëstu diina ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa boobu bari ma yom